tey ji nag li waraloon suñu jotaay bii nii comme bépp citoyen boo xam ne yaa ngi yeewoo ci dëkk yoon may la ko nga fay yeewoo nga gis loo xam ne xëy xëy da gis ne lii maam par exemple àndut ak àq ak yelleef yow mi nga xam da nga faa dëkk droit daf laa may ak sa devoir nga xëy défendre ko ba mat sëkk. li waraloon tey jii ñu jiite ñu taxaw fii lenn la ñun ñëpp jotaay bi li ko waral dañ leen wax circonstances yi ko waral maam ci yan situation la ko la ko waralee bu yàggu récemment rek ay quelques weer ci ginnaaw. sëñ Muntaxa Mbàkke Basiru yàlla na ko yàlla may fanu gudd ak wér-gu-yaram dafa woote woon askanu tuubaa yëpp di leen xamal ne dafa amoon yéene ci yàkkali mbedd yu mag yi ak lépp loo xam ne maam président teguwul ci yoon wi mu jële ko fi ndigal loolu nag mu joxoon ko ay Baay Faal Baay Faal yi ne woon combat bi def seen képp lay kàttan képp ku fi daan ñëw tuubaa ay at ci ginnaaw boo ñëwaatee xam nga ne mbedd Touba yi changé na lool te ñu ngi koy rafetlu bu baax baax ci loolu nag ko defee ci ginnaaw ay weer yu diir rek am ay nit ñoo xam ne dañoo ñëwaat fii dikk di waxtaan ak askan wi naan leen sëñ bi kat jot nañ ci moom ndigal ak mairie Touba que ne ñoom am nañ droit implanté waat fi ay station fii ci dëgg mbedd fii ñuy wax ak yéen nii ñu taxaw nii mooy corniche Daara Jolof képp ku fi daan jaar xamoon nga ne maam par exemple ni meloon ci desaru ci ci des bi Baye Fall defee liggéey boobu ba pare jaar fi mobiliser ñi fi dëkk ñëpp ñu ac ñu accepté ñun ñëpp d'accord ci jël suñuy bagage ñu ñëpp dem am ñeneen ñu fi ñëwaat pour des intérêts personnels dikk di ñu présenté ne sëñ bi moo leen jox ndigal ñu ñëw sampaat fi ñu leen xamal ne ñun nag waa population bi nga xam ñoo dëkk fii ci Corniche Daara Jolof pare nañ taxaw lépp loo xam ne daf ñu koo jaral pour affaire yi fi taxaw parce que nag yenn yi nag yëpp kàddu sëñ bi weesuwu ko lu dul nga dikk sëñ bi wax ba pare nga dikkaat modifié kàddu sëñ bi naan sëñ bee la jox ndigal te te booba am na fi ñeneen ñoo xam ne ñu ngi nekkoon fii ci Corniche bi yëkkati seen kàddu ngir ngir ndigalu sëriñ bi jël fi seeni i bagage dem boo dikkaatee yow na dañ laa privilégié kon nag loolu dinañu jaaxal parce que ñun xam ne ne sëñ Muntaxa doxewul noonu ay kumba am nday ak kumba amul bàyyi loolu ngay bëgg a installé ñu xam ne ne loolu sëñ Muntaxa doxewut noonu bu fekkee nag dañ ñoo bëgg a xamal ñun ñu dëkk Touba dafa am ñoo xam ne dañuy privilégié wu ci kàddug sëñ bi am ñoo xam ne nag duñ ci privilégié wu ñu wax ñu ñu xam jusqu'à la preuve du contraire ñu dañoo gëm ne sëñ Muntaxa du du ak ak ni mu mel ñëpp xam nañ ko ci Sénégal du defal ñi bàyyi ñi soit day boole ñëpp yamale ci lii wala mu boole ñëpp yamale ci lee kon nag bis na ko tey ñu leen di xamal ñun nag pare nañ pour def lépp parce que ñun jot nañ fi ay yoo xam ne bëgguma ko wax sax mais dinaa ko wax ay menaces ak man mi woote nañ suñu kër ba tàyyi naan ñu police ak gendarmerie nee nañ pare nañ ndax ñi am nañ ay kër yoo xam maire leen ko ñu xamal ñoo xam ne jànguñu xamuñu dara dañoo xam li ñuy def wóor du ay xale koy organiser li nga xam ne maam par exemple maire da cee am droit ñun xam nañ ko li nga xam ne maire amuñu xamuñu ko li nga xam ne mooy par exemple code pénal bi nga xam ne moo moo moo moo moo boole lépp li nga xam ne mooy wàllum collectivité locale dafa prévoir que bépp mbedd boo xam ne maam par exemple dañ ko implanté ay ay garab ah te garab yi maam seq tali bi amul kenn koo xam ne am nga droit dagg ca garab yi wala nga def ko loo xam ne espace vert la boo ko defee amende dina la ci fekk bu fekkee da ngay jàpp ne nit ñi nag ñoo jàng wala xamuñu ñoo ngi nax seen bopp lii ñuy wax fii nag du samay kàdd man ko kàddu askan wi dëkk fii yépp la ñun nag bi ñu doo diggee ay rumeur lañ woon waaye keroog bi fi maçon yi ñëwee bëgg a fii commencé ci lañ gëstoo ñu wax ñu ne maam benn kilifa la ci dëkk bi ba doomam ñëw waxtaan man présenté wu ma ne papam di tudd Abdoulahat Jaxate moo moom terrain bi bëgguma woon tudd sa tur sax mais dinaa ko tudd parce que parce que doom ji moo ñëw fii waxtaan biñ dikkee maçon bi man maa ñëw personnellement ak samay groupe dikk na nga fiy def mu daan ne way dañ wax loo ne nangu moo woon a leeral sax ma ne ko arrêté mu ne ma damaa am kilifa kilifa kilifa ñëw ma dikk ne kilifa gi yow yaa fi samp kii nii pour muy tabax mu ne moom it lante noor ko dañ ko dañ ko contrôlé lo la woowee doomi Abdoulahat Jaxate mu ñëw biñ dikkee maa moom fii lañu waxtaan wax naa ko la mu war a wax lépp nag ba mu déggoo ci la jëlee simaam ak ay pelam dem bi ñu xëyee nag la fi police ñëwaat di waxtaan ak ñun ñi ay benn par benn dañuy wax nañu waaj def ay këyit ak yooyu ñun daal li ñu bëgg a xam lenn la bu fekkee maam jox nañ ko autorisation nañ xam ne maam par exemple ñi ngi ñi ngi soofal euh, kàddu sëriñ bi di ko di ko suufee ci suuf goo xam ne xale yu bari ñi ngi commencé fi nii mer nañ tege place publique la aussi te tamit am na loo xam ne bu nga ko gisee du ko seetaan mën naa indi jëya ndax euh, boo leen xoolee Saint-Louis fan yi am na benn station bu fa explosé woon te lu ko waral genre la moo ko indi ndax station bii nii ba tey am na bëri suuf te am dañ naa mën naa am gasoil imaginel benn feu loolu tamit nekk na loo xam ne ñoo ngi ñoo ngi ñaan bu dee waa Touba ca kanam am na am na am na am na yi ñu ñëw dindi bëri ci nekk urgent parce que tamit nekk xam du yoon pour station bi nag ne fi loolu da koy bañ parce que dëgg yàlla sëñ Mountakha moo digle ni lépp loo xam ne jigéen na télé bi na fi jugee ci la Baye Fall ñëw jël station bi tocc ba moo ko rumbax ba ñëpp gis ko bu ñeneen bëggee ñëw nag day mel ni ko maam la sëñ ba digle woon dañ koo bëgg a teggi ñëw teg leneen ñu nag ku ne xam ne ni ñun Jeune Touba daam nu ñu yaree Jeune Touba daam ñu ni comporté woo sëñ Mountakha bu waxee ñun ñëpp waaw la ñuy wax comme kii nii bu ñëwee bëgg a def li day mel ni li sëñ Mountakha wax da ko fa bëgg a teggi waxe sëñ Mountakha nag ku ko bëgg a teggi ko teggi loolu duñ ci bañ dara ak fu mu ak doon di ñaan nag autorité yi ak ñi dëkk Touba kilifa yi lii na ci Sëñ Muntaxa jot ndax lii bu ci bu Sëñ Muntaxa mu faju ndax na ñoo xam ne dañuy wër di mbubboo Sëñ Muntaxa na ma nangam ak ñi te ku na ñun ay jeunes lañ demaguñu fenn kenn mënu ñoo corrompre kenn mënu ñoo tiitaloo ndax Sëñ Touba dañ yaakaar ku yaakaar Sëñ Touba nag kenn mënu laa nax kenn mënu laa corrompre kenn mënu laa ragaloo aussi station dafa amee tey dafa amee ëllëg ak ku mënti doon ci ndigal Sëñ Muntaxa incha allah waa jéego yi def mooy ñun déclaré nan woote nan Baye Fall yi ndax ku ne xam ne ni Baye Fall ñoom la sëñ bi jox ñi euh, waa dëkk bi ah fii kat li ngeen fi jële woon am na ñoo xam ne ñu waa nañ ko fi jëlewaat waxat na ko en tout cas loon beneen dëkk la dañ fiy nekk di jël ay jëli suuf di ko sànneeg wala ñuy toj duñ ko def yerewuñu loolu Touba lu ñu yere mooy lu ñuy def danga def ci yer ak teggin ndax xam ne ñun Touba daa am comportement bu ñu yaree kon duñu fi def dara duñu fi nekk di manifesté wu duñu fi def dara waaye li mën mooy toog wax kilifa yi jot ñu fajal ñu ko parce que Touba dafa bëri loo xam barki démb poto lampe yi nii nga gis am na ñoo xam ne dafa ñëw di ko wekk jël jël lampe sore di ko yóbbu te kenn xam ku doon mais Touba loolu la mu dañ fi fii dina bëgg mu nekk ku fi ñëw taxaw am xam ni comportement Touba moo fi nekk parce que Touba bi ñi fi fii ñi fi dëkk ñoo koy defaral te loolu ñun pare nañ ci duñ ci ragal dara incha